وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوكي ني باي خيل فن مانا نيك تي ادنا بي مو ني نيك تي مي ولا ني نيك بيتي ريو تاي باي خيل سين سين بام سولو بي موي لا غران سيكري ا لين دي واخاتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ginnaaw biñu santate yalla julli ci yonente bi sallallahu alaihi wa sallam ñoo ngi ndokkel ak jaajeufal mboole mbokk yi nga xamne ne ñu ngi baye xel ak fu mëna a ne mbokk yi dikati nañ ak yeen ci jotaay yi nga xamne dañ koy am ak yeen ci seen seen baam solo bi tay ñu fas leen indil ben secret bo xamne secret bayre la secret bayre la ci sëriñ bo xamne da ngay ñaan bëgg di la dikkal sakara bayra la ci ko xamne da ngay jaay bëgg mbolo di la dikal muy sakara bayra bu am solo bo xamanteni ni ko xamne tewlo nga vidéo bi bu baax ta defé ko ni ñukay waxé insha allah rabbi di nga ci bëgg di nga am insha allah waye bala ñuy gëna sori ci secret bi wala ñuy gëna a yaatal rek dañuy def ab fàttali comme niñ koy ci suñu yenen di la wax yow mi nga xamne da ngay gan ci paas bi bu fekke ne abonné go ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te sem vidéo bi partage ko mu gëna yaatu ndax par yaatu gi njariñ kese la te njariñ moom nu mu gëna yaatu rek ci la gëne di la wax yow mi nga xamne timit da nga bëgg def lu sét wala nga bëgg def lu listixaar dañuy def sét dañuy def lu à distance mo xam nga nek ci rew mi wala nga nek biti rew ta bëgg ku la defal ben ci ñaar yi man nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 77 684 28 28 numéro bi whatsapp la dañuy def set ramdu dañuy def timit li ci xara distance buko defé mbokk yi nga xamné ne dañuy yittewoo garab yi kattan yi muy garab yi musxam yi ñu leen di xamal né garab yi disponible na jamono ji ñi wax ak yeen képp ko xamné yitté wo nga ko rek mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek biti réew man nga ñu contacté ci numéro bi muy 77 684 28 28 dinañ leen wax tuuti ci njariñul garab gi garab gi liggéeyal nañ ko ay garab yoo xam ne yu am solo la bokk na ci njariñam mooy dafay yokk mën yu góor ndax ñëpp xam nañ ne góor mën yom day yokk day wàññiku garab gi boo koy jëfandikoo day dundal walax njaan walax njaan mooy li tax nit di am doom wallax njaan boobu dafay feebul garab gi da koy dundal en même temps garab gi kattan la cent pour cent boo koy jël suñ borom dalay jox kattan bu baax a baax a baax a baax incha allahu rabbi ndax képp koo xam ne yittewoo nga ko rek mën nga ñu contacter ci numéro bi moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk biti réew incha allah boo ñu contacter dinañ def la tout nga jot ci ci mu gën a gaawee incha mbokk yi xanaa dañuy ñëw ci secret bi nga xam ne moom lañ leen a fas yéene indil tey secret bi mi ngi nekk suma afidu min aysu afada annaas suma afidu min aysu min aysu afada tam nek ci suratul baqara suma afido min aisha afadan nasi mom ngay bind fexe ba bind ko 114 quatorze hadadu xadadu boko binde ni shafara bo noppé sangkal. da ngay wut sankal sankal ngay wut sankal yaakaar na ni ñepp xam nañ ko bu ne nga def ko shafara wut sankal sanqal boo koy natt nag da ngay jël sa ñaari loxo nga natt ci lu tolloog loxo maanaam sa ñaari loxo ngay tibb lu tolloog ñetti loxo nga jël lii nga xam ne mooy saafara si nga def ko ci biir sanqal si ba noppee nga jéem a fexe ba ba noppee nga jéem a fexe ba jël sanqal soosu noonu bu dee nit ko xam ne da ngay ñaan nga di ko def ci béréb bi ngay ñaane bu fekkee ne da ngay nit koo xam ne da ngay liggéey ci place lépp loo xam ne bëgg nga mu jar rek fexeel ba sànqal soosu laal ko incha allah rabbi dina jar ci nim gën a gaawe incha allah waaye nag yemul ci lool boo defee lool ba pare da ngay jéem a fexe ba bis bu yàlla sàkk nga werdu suma afidu min aysu afada nasi nga werdu ko 114 muy adadu jaami boo koy wér da ngay njëkk jital istighfar muy astaghfirullah cent salatu ala nabi bo man nga weddu ko cent daal di def 4 waaw daal di def 4 def 10 def 100 inshallah rabbi li ku ko saxal diggante bu gatt li ñu ci wax di nga gis resultat ci nim gëna gaawé inshallah rabbi xamna ko ni moy mooy secret bi ñu indi lon tay di la wax yow mi gën ci pass bi bo abonné gul ci chaîne bi ñong lay ñaan nga abonné te seen vidéo bi partage ko mu gëna yaatu yow mi nga xam ne da nga bëgg def lu seet wala nga bëgg def lu listixaar man nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 incha allahu rabbi kon mbokk yi xam naa fii la ñuy yem ak yéen ba ëllëg dikkaat ak yéen ci beneen secret incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf